fay mm-hmm. ah, ñëw dox si tànki njaal mm-hmm. mu nekk tamit tànki mbokk ñëw ah, jaale si ah, kii di président Ousmane Sonko jaale si tamit euh, partie bu ñu ñëwee Pastef les patriotes wante jaale tamit euh, mbokk suñu doomu ndey bu fi jógee di leen di wax si gi leen digaale di ñaan ku fi jóge yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe yi di ko ñaanal parce que naam patriote bu daanu la wante martyr bu daanu la donc am nañ yaakaar bu baax a baax a baax que yàlla dina nangu ñaani yi euh, ay mbokkam ak kii di président Ousmane Sonko ak bépp nga xam ne jot nga ko xam wala jot jaxasoo ak moom ñu ngi lay ñaanal tamit yàlla may la xolu muñ parce que li metti na lool lool lool àdduna naam dëgg la demal maa ngi ñaw la wante accident moom amul kenn ku koy ku ci kuy kuy euh, kuy xaar accident accident day bettaate kon moo tax euh, choc bi nekk choc bu xaw a violent ci ñëpp te wax dëgg yàlla moom nekkoon na ndaw bi nga xam ne nii demoon naa ba xamante ak moom mu nekkoon ku amoon euh, itte ku amoon pas-pas ak ku amoon pasteef te yëgoon ñit daanaka des fois sax dama doon dem ci xew-xew Euh, mu bàyyi Ousmane di ñëw ci man di ma photo ma ne ko yow yow yow euh, mu ne ma déet ñun man moom opposition laa fi nekkal donc wax dëgg yàlla je garde ce jeune homme de très bons souvenirs euh, te yéen tamit de la presse maa ngi leen di jaale parce que seen mbokk presse la woon photographe la woon un garçon très engagé donc dañu ñaan yàlla rek lii moom mu mu gëj fi parce que àdduna moom àla kulli yàlla yu mel ni dina am wante lii moom dañuy ñaan wax dëgg yàlla na fi gëj te di woote jàmm ak salaam ci réew mi. ban message ngay joxe parce que jamono ji gis nañ ne langum politique bi bëri na coow tout récemment Pastef attaqué nañ ko fële ci Ziguinchor ak comme ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa këru Doudou Ka yow en tant que leader ban message ngay joxe ci loolu. moo tax ma doon wax sànq maa ngi ñaan dëkk bi am jàmm parce que accident la wax ñoom bu ñuy jógee Ziguinchor xamuñu ci ban état d'esprit lañ fa jógee parce que dañ fa jógee bàyyi fa coow bu bëri. Donc, euh, man, je connais très bien le tronçon euh, Ziguinchor-Dakar. Euh, jógee kër Ayib di dugg Kaolack ñëpp xam nañ ko tali boobu baaxut. Mhm. donc euh, nañu ñaan yàlla jàmm sax Sénégal parce que c'est sûr et certain que ñoom ba ñu jógee Ziguinchor ils n'ont pas quitté Ziguinchor avec un état d'esprit apaisé. donc euh, wax dëgg yàlla ñu ngi ñaax ñëpp képp ku nekk ci langue politique bi na doxal ak ànd ci ak gëm yàlla parce que am yàlla mooy buur. ñàkk yàlla mooy buur yàlla noppi na démb tey soog a ñëw donc ñu ngi vraiment ñaan ñëpp nañu ànd ak dal parce que des fois ñun ñi dañu yëngatu ci politique wante suñu gestoo suñu ginnaaw euh, ñuy ànd ak ñun sax daanaka ñoo ñuy ëpp xadar donc euh, moo tax vraiment maa ngi ñaax ku ci nekk ci ñun nekk ci langue politique bi ñu ngi dem ci ay élection nañu ànd ak dal nañu ànd ak xel parce que li yëpp ci nettali lay mujjee ëllëg